monsieur Amath Soumaré ñu ngi lay nuyu. ñu ngi yow euh, sa xel dafa màcc ci intelligence économique euh, yow tamit yaay président centre africain de la nouvelle économie ñu naan que CAN Executive Education yaa jiite aussi commission bi saytu wàllu intelligence économique ak nouvelle économie niki noonu euh, TIC ci mouvement des entreprises du Sénégal am na ñu mbégte dalal ci matinalu Rewmi FM. ok jërëjëf. Mhm. alors monsieur Soumaré jamonoy coronavirus bi ñu nekk dañuy dégg lu bari ñuy wax récession nga expliquer un peu luy récession ak kañ la ñuy jàpp ne économie dugg na ci récession. économie dafa mel ni yow nit koo xam ne day daw dafay def dafay def jogging maanaam day daw di entraîner wu nu muy xëlee xële xël ni muy xël xël bu baax donc bu demee ba yenn saay mu sonn mënatul day wàññi day wàññi tànkam bu demee ba mënatul mënatul mu muy dox bu mënatul mënatul mu taxaw économie noonu la mel maanaam économie bu fekkee ne dafa am croissance li ñuy wax croissance mooy affaire bi dafa yéeg dem ci kaw lépp secteur économique bi yëpp mooy dox day mel nii xéewal moo ak si ñëppay liggéey day am tabax yi am kii yi am léppay am mm. léegi bu fekkee ne léegi nag am na problème bi économique ci ci ci benn fànn yëf yi commencé wàññeeku ñun la yëg yi dëkk bi dafa dëgër amul xaalis bu amul demee ba ci kanam kanam yëpp yëpp daxul yëpp yëpp taxaw donc euh, du taxaw complètement mais ñi doon liggéey ñu si bari chantier yi day tëj ñi taxaw ñii di xaar yi kii tëj comme nii fi ngay gis tey hôtel yi dafa tëj kii tëj loolu nit ñi liggéeyatuñu kooku économie boobu la ñuy wax ne dafa am récession maanaam dafa wàcc récession mooy lu wàcc mais taxawul waaw économie taxawee kooku musiba la mm. économie dafa dafa taxaw fu dafa dafa dafa wàcc maanaam mm. ñi ngi liggéey mais ñi liggéey bariwul par rapport ñu bëgg liggéey. loolu moom la ñuy wax économie bu am récession. te récession boobu dafa am si si si suñu compte suñu contexte économie bi dafa am yeneen fànn yoo xam ne ñoom ñoom ñooy yaayu mbir mi maanaam dañu nekk dëkk yoo xam ne donc du ñu du ñu dund ci suñu lu ñuy lu ñuy lu ñuy lekk par exemple lu ñuy lekk yëpp day jóge bitim réew kooku bu fekkee ne am na bitim réew am na fitna dañ koy subir. parce que ñun dund luñu suñu bopp du ñu bàyyi lu ñuy lekk loolu moom mooy problème bi am maanaam ci récession yi ak impact yu muy am maanaam suñu économie ak suñu façon dund. Mhm. ak suñuy koom-koom maanaam. alors banque mondiale ci alxamis ji euh, dafa daal di génne ab rapport alerte ci Afrique subsaharienne ne euh, bu ñu mayewul dinañu dugg ci ab récession ci atum deux mille vingt mu signalé aussi ne que ñaar fukki at ak juróom a ngi nii loolu amul lan la ñu mun a xaar ci fànn boobu ci Afrique. ah lu ñu lu ñuy mën a xaar mooy que dañu war a xam ne jamono ji léegi dafa dañu nekk ci phénomène boo xam ne moom la ñuy wax mondialisation mondialisation mooy dëkk yëpp dañuy jënd ak jaay ak seen biir dëkk yëpp dañuy defarante seen biir dëkk yëpp dañuy dañuy kii lii dañ koy defar fii léeg ñuy defar ko fi ñuy defar fii ñu assemblé ko benn dëkk loolu moom mooy mondialisation bi muy mondialisation financière bi maanaam xaalis yi jaar ci bourse yi muy mondialisation lu ñuy wax production mooy fi ñuy def benn dëkk boo xam ne moom la ñuy defaree yëpp yóbbu ko feneen yóbbuwaat ko feneen ñu dajale ko def ko def ko mu nekk produit fini boo xoolee tey mondialisation boobu dëkk bu mel ni Chine dëkk bu mel ni Chine trente pour cent production mondial bi moom moo koy defar lépp luy jëm ci ordinateur yi yuy jëm ci yenn kiiw pharmacie yi luy dem ci li ci bëri ci affaire oto yi affaire avion yi affaire tukki foofu lañ koy defar léegi buñ ko defaree foofu yóbbu ko beneen dëkk ñooñu assemblé ko boo jëlee ordinateur yi nga jël par exemple euh, tablette yu Apple yi yu Macintosh yu Apple société américaine yëpp fële lañ koy defaree bu ñu paree kii ko fële assemblé fële def ci seen tour Apple mais Chine lañ ko defaree donc ce qui fait bi yëpp dafa interacté muy muy médicament yi muy lépp foofu lañ koy li ci bépp yëpp yi dañ yëpp amul benn dëkk buy defar moom rek lépp lépp ba mu jeex ce qui économie bu fekkee ni kii dafa kii dafay sëqët kële kële am na kële soj na loolu moo problème bi léegi ce qui fait léegi économie bi yëpp ñoom ñëpp dañuy dépendre kii dafa dépendre ci kële kii dépendre ci kële et loolu moom moo tax yëf yi gën a jafe banque mondial lu muy wax kooku loo xam ne am na lu am la parce que ñu gis nañ ko mm-hmm. yow ku xam ku xamul sax économie dara xam nga ne fii nit ñëpp ñi ngi tëju waaw ku xamul dara boo génnee gis yenn kii ngay xool télévision yu gis dëkk yu mel ni New York yu mel ni tug dootoo gis sax nit ku dox kooku nga xam ne am na lu xew waaw am na lu xew le problème bi mooy que bu fekkee ne léegi pays ak ñun suñu dëkk yi dañuy nekk ci contexte bi nga xam ne contexte mondialisation dañuy jënd di jaay ak ñeneen ñi ngi yore suñu matière première di ko jaay hmm. ñi ngi jënd suñu lekk muy jóge bitim réew comme suñu ceeb bi ko loolu wax lekkal ceeb ceebu ceebu waalo bi mën a bëggul ceebu waalo ceeb buy jóge Vietnam la bëgg hmm. léegi bu fekkee ne Vietnam yi yóbbu ñu indiwu ñu ceeb lu ñuy def ah les yëpp mooy loolu léegi ni ñu dépendre ci économique boobu moo tax rapport banque mondiale bi dañ koy war a Euh, dañ ko dañ ko war leeral ci bopp nit ñi sinon dañuy tiital nit ñëpp mhm. ba nga xam ne économie yi nekk ci dëkk yi nekk Europe ak Amérique ak Asie ak suñu économie bokkul ñoom seen économie dafa nekk économie yoo xam ne dafa dépendre ci bourse yi maanaam euh, bourse yi euh, dañuy dañuy luñ comme lañuy fii li ñu xam luñ koy waxee carte xaalis maanaam mhm. da ngay dugal sa xaalis léegi bu xaalis bi bay liggéey mën na la indil plus léegi assurance yeeg Euh, comment ça s'appelle retraite yeeg képp épargne yeeg yëpp dañ koy dugal ci bourse mhm. mais bu fekkee ni bourse bi bourse bi du yéeg tout temps day am yenn saa yi nag bourse bi feebar bu wàccee nag ñëppay perte léegi <laughs> loolu moom mooy problème bi léegi lii nag lu ko indi ci pays occidentaux yi maanaam pays lii di Europe ak Amérique mooy depuis crise bi amoon crise de la dette lañ koy wax mhm. crise yi am yëpp crise de la dette la muy crise u dix neuf cent vingt neuf muy crise u deux yëpp crise yu dette la mais crise bii ñuy dugg nii du crise yu dette la plus crise sanitaire loolu moo tax c'est la première fois configuration bi am musul am musul am loolu moo tax nag donc dëkk yooyu am problème bu dul jeex parce que depuis ñetti at dëkk yu mel ni Europe ñoom ñëpp ñu ngi woon fayit bu amul woon affaire crise sanitaire bi ñoom ñëpp dañuy fayit balaay at bii dee ñu fayit parce que seen dañoo dañoo endetté endetté wu endetté wu ba nga xam ne banque yi banque centrale mooy mooy def ay planche à billets di leen di jënd seen dette yi di jënd seen parce que ñoom ñëpp ils étaient en économie négative maanaam ay moyens la ñu am ndax ñu sax zéro moins donc euh, bu fekkoon ne coronavirus bi amul woon ñoom ñëppay fayit quatre vingt pour cent banquiers yëpp amatuñu benn benn action bu baax mhm. benn benn banque Europe amul foofu action bu baax ñëpp ils ont dépassé li nga xam ne moom mooy critère bi ñu leen joxoon ci waruñu ko dépasse ñëpp ko dépasse loolu moom moo tax nag crise boobu bu ñëwee ak ñun fekk ñun dañuy jënd at yi banque mondiale li mu def nii da li muy wax nii donc loo xam ne euh, dal na kii kii na xel parce que lu fekkee ne ñun dañuy jënd ci biti te ci biti ñoom ñu am problème day am impact ñun parce que li ñu doon jënd si ñoom pour muy ñëw si ñun dootul ñëwati mm-hmm. ñun li ñu doon jaay dootul jarati mm-hmm. léegi problème boobu nag moom moo moom moo tax interdépendance économie yi loolu moom moo tax ñu prévoir que ne au moins quatre points de PIB maanaam ñeenti point boo amoon dix dina la di nga ci di nga retrouver ak ak six mhm. boo amoon six di nga retrouver ak deux ñun Sénégal defe naa ay sept yooyu la ñu amoon boo ci dindee quatre à peu près dinañu taux de croissance bi ñuy bi ñuy prévoir mooy à peu près ay trois pour cent mhm. donc dëkk yi nga xam ne ay ay deux pour cent la ñu amoon. Mm-hmm. waa deux pour cent dañuy retrouver ay moins deux pour cent. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw loolu moom mooy loolu moom mooy jàngat bi quoi maanaam. d'accord alors si wàllu woowu intelligence économique wala nouvelle intelligence ban euh, appui la mën a indi ci économie euh, ci jamono boobu fu mel ni Sénégal par exemple. Ah, xam nga intelligence économique. li nga koy saytoo moom mooy économie dafa am ay incertitudes. maanaam dafa am yoo xam ne yow xàmmeewuloo ko. intelligence économique liggéeyam mooy mu leeralal la jox la ay certitude nga mën a xam ban yoon ngay def ñun par exemple bu ñuy créer euh, concept intelligence économique et développement 1995 biñ ko créer dañ ko créer parce que ñun dañu doon liggéey ci problème mu développement dëkk yi ak développement entreprise suñu suñu xam-xam suñu kii yëpp dañu ne lii suñu priorité mooy ñu def ko suñu économie nan lañu information bi nañ lañ koy jëlee dugal ko suñu suñu dëkk yi pour dëkk yi mën a naat parce que dañuy demoon ci constat boo xam ne dëkk yu dëkk yu développé yëpp dañu am information dëkk yu am sous developpement yëpp manque d' information moom moo doon postulat de base bi maanaam moom moo doon base bi ñu tegoon mm-hmm. bu ñu xoolee suñu dëkk yi kenn amu ci information boo maîtriser donc ñoom ñëpp dañu nekk su développé bu ñu xoolee beneen côté bi ñoom ñëpp seen information yi dafa dafa élaboré wu ñu ne léegi nan la ñuy def pour jël information yoo xam ne mën nañ ko def ci suñu dëkk yi pour suñu dëkk yi naat loolu moom mooy suñu démarche intelligence économique et développement bi ñu ko développé ñu teg ñetti ak ne premier axe bi pour suñu dëkk yi moom mooy ñu assurer suñu sécurité alimentaire deuxième axe bi mooy ñu assurer suñu sécurité économique sécurité alimentaire bi moom mooy loo xam ne yow da nga ko kii pour nga sa biir bañ a dépendre ci keneen. Mhm. waaw sécurité économique bi mooy même bu fekkee ne investisseurs yi dañuy ñëw mooy euh, assemblée nationale bi gouvernement bi def ay loi yoo xam ne dina protéger suñu PME PMI et entreprise yu tuuti yi pour ñu bañ leen ñeneen yi ak bu ñu ñëwee ak seen xaalis bañ leen lekk. Mhm. troisième bi moom mooy ñu jël patriotisme bi activisme bi dugal ko ci société civile bi parce que dañu dañu dañu comprendre bu fekk dañu doon liggéey ci développement mhm. dañu comprendre très tôt ci li ñu def ci àdduna yëpp ak dëkk yu ñuy wër yëpp que benn dëkk ci àdduna développé wul sans ñetti ñetti paramètres yooyu dëkk bi la gën a développé ci àdduna ñetti paramètres yooyu développé na ko dina biiram dina dina moom moo koy alimentaire am ci moom lay dépendre du mhm. dépendre ci biti mhm. entreprise dina leen protéger société civile bi dinañ leen di sensibiliser ba nga xam ne dëkk bi ñoom dinañ xam lan mooy civisme lan mooy patriotisme dëkk yow la gën a patriotique ñoo la gën a développé. xool ko ci àdduna sa biir muy Chine ak muy ñeneen ak muy japonais yi ku la ci gën a am esprit patriotisme moo la ci gën a développé. Mhm. donc société civile daf ci am wàll. Mhm. gouvernement bi am ci wàll. et ak sécurité suñu sécurité alimentaire am ñett yooyu boo ko boolee nag nga am concept intelligence économique et développement. d'accord euh, bu ñu xoolee li nga fi wax yépp euh, dafa mel ni kon Afrique euh, mën naa génn ci mbir mi par rapport ak yeneen réewi Europe yi. ah bien sûr ba yeneen réewi Europe seen économie nu mu nu muy doxe ak une économie basée wu complètement ci bourse ñun suñu économie basée ci bourse hmm. amuñu problème yooyu suñu problème xam nga lan lay nekk. Hmm. suñu marchandises yi ñuy jaay ci gars yi jënd ko parce que amatuñu xaalis loolu mooy suñu problème mais suñu problème suñu problème yëpp loolu la lépp li nga xam ne moom moo doon dugal xaalis ci dëkk bi xaalis boobu dugutu ci parce que amatuñu dara. Mhm. ñoom ñëppay rës. loolu moom mooy suñu problème majeur. mais ñun amuñu problème boo xam ne suñu bourse yi la ñuy dugal ci bourse sunu suñu économie suñu économie basé ci économie réelle la ñuy yor. d'accord léegi ñu daal di wax ci Sénégal ñu bëri dañoo njoxtu ne pétrole ak gaz bi nga xam ne gis nañ ko fi yàggul dara mën naa dimbale aussi réew mi ba mu am dëgërlaay ci wàllu koom ndax yow itam gis-gis boobu nga am. non macha allah parce pétrole bi. fii ak ñetti at ñeenti at lañ koy lañ koy lañ koy commencé di bu di disons ñeenti at daal wala juróomi at ñu nekk ci vitesse de croisière mais problème bi am dafay assainir économie mondiale lu ci bëri day changé waat léegi ñun fii ak deux trois ans même bu fekkee ne dañuy dem ndànk-ndànk ba trois ans quatre ans cinq ans pétrole du pétrole bi fi nekk du dem fenn foofu lay toog. d'accord pétrole bi boo ko utiliser wul di nga ko fekkaat. du mm-hmm. disparaître. donc ce qui fait que ñun amuñu vraiment leneen loo xam ne ñu ngi koy kii nañu maala suñu malaan patience tak suñu truc léegi lu ñu war moom mooy ñu jéem a assurer suñu sécurité alimentaire pour que dëkk bi suñu lekk yi bañu dépendre ci bi mm-hmm. kooku yee bu mag la ci ci problème bi léegi mm-hmm. gouvernement yëpp Afrique yëpp waxuma Sénégal Afrique yëpp boobu préoccupation la ñu am léegi mm-hmm. léegi seen sécurité alimentaire ñu dépendre ko ci seen dëkk wala ci région bi ci suñ sous région économique yi. Mm-hmm. moom mooy fanaa njàngan bi yëpp loolu la léegi bu sa biir nag bu fekkee dafa défendre ci bit yow dee nga parce que mm-hmm. bu fekkee ne ki lay jox ki lay jox nga lekk bu fa nekkatul yow dootoo lekk. Mm-hmm. te xiif moom àndul ak leneen. ah loolu la ku ko xiixul mënul xalaat léegi daal je pense <laughs> yi sama njaam yeeg yi jërëjëf <laughs> Amath Soumaré amoon nañu mbégte dalal la ci matinalu réew mi fàttali ni yow expert nga ci wàllu intelligence économique euh, yay itam président centre africain de la nouvelle économie di CAN Executive Education euh, nga jiite aussi commission intelligence économique nouvelle économie ak TIC euh, bu MEDES di mouvement des entreprises du Sénégal. Fall. waaw jërëjëf Fatou ñu ngi leen di gërëm yow ak sa auditeurs yëpp jërëjëf ba beneen incha